alors Tapha Seydi Vautour su ma la waxee Vautour lan lañ ak déjà pour commencer nekkatul Tapha Latsu Kaabe la. ah Latsu Kaabe la Latsu Kaabe Anta Diop parce que da ñoo napp Latsu gis naa da ngay nappe noonu bande annonce bi. non la Latsu Kaabe day ma oowee Latsu Kaabe. Latsu Kaabe Latsu Kaabe lan lañu mën a xaar ci en tout cas liñ ci mën a xaar bëri na liñ ci mën a xaar bëri na boo xamante ni dafa bu ma mu ngi door a am série boo xamante ni dafa boole ñaar temps yu bokkul mooy démb ak tey donc surprise yi bari na euh, baal ma bañ a expliquer lu bari baal ma bàyyi rek xam nga gars yi découvriral seen bopp quoi. mais est-ce que série bi dina yaakaar nga ne dina captiver téléspectateur yi doon seetaan Evenprod gis nañ ko ci Idole Evenprod gis nañ ko ci Infidèles Mœurs. Euh, yaakaar naa mu capté gars yi parce que léegi gars yi dañu màgg ah léegi seen bët gën na màgg ci cinéma dañuy comprendre ah. donc. Euh, goo mën a dina dina dina capté gars yi pour dina capté gars parce que compliqué wu comme ni idole compliqué wul lii moo gën a léger quoi gars naa ne gars yi leen comprendre. Asukabe nag lan la ci def waaw ah, comme li ma wax sànq rek laay li ma wax sànq laay wax rek mooy Latoukabe li leer ba leer mooy benn caat la boo xamante dafa bokk si famille boo xamante ni famille bu aisée la bon réew na daal. i day day baadu. réew na daal loolu rek laa si <laughs> batoo. mën nañ xaar lépp mu def. mën ngeen xaar lépp mën na def lépp. mën na def lépp lépp parce na. mais acteur bi ak directeur artistique bu event pot nga. nan nga mën a boole ñaar yi nan lay demee sooy dem tournage ak loo war a gérer. méttiwul dèjà boo nekkee acteur rek daf lay gën a dimbali. xam nga boo nekkee directeur artistique te nekkoo acteur pour man si lay gën a mais boo nekkee acteur da ngay xam na ngay communiquer ak sa acteur yi du métti. acteurs yu bëri nag su ma waxee ñoom dafa dimbali nañu dimbali nañu lan sa sa proximité wala sa complicité ak acteurs yi. Ah, non man ak ñoom dañu dimbalante rek. cest dire dañ ma dimbali si si déggal xam nga respecté li ñuy def aussi man li ñuy def donc man aussi tamit ma dimbali leen as tuut si li ma yàlla dénk bon euh, si le fait que may comprendre projet bi parce que si projet bi laay bokk. donc ñoom dañuy ñëw duñ ko comprendre man maa leen koy gën a comprendre léegi damay fexe ñoom ñu comprendre projet bi rek loolu la lu ma fàtte laaj Ibou loolu laa lay sama mag bi Nene ak Amadou chaque jour ñu seet njabaat dañoo seetaan benn épisode zéro bi chaque chaque chaque jeudi ñu xool ko série bi lu tax dawul ci YouTube bi ngeen def benn épisode rek bàyyi ko. waaw xam nga d' habitude ñun noonu la ñuy liggéey bu fekkee yaa ngi ñuy xool bu baax depuis ñu commencé liggéey ak vidéo ba léegi. waaw vidéo mooy am exclusivité. vidéo moo waroon teg huit épisodes. Euh, ñu door a commencé YouTube ak télé bi bien sûr donc maintenant télé bi commencé na mardi donc à partir de dimanche prochain incha allah lay commencé daw YouTube incha allah d'accord merci beaucoup merci